salaamaaleykum mee ko internet Siweul ko TV tey ki ñu toogalaat moom kenn doo ko toog ko présenté si mim réew seex borom kiraama yi seex borom kaas yi seex borom siwal ko seex nuyu nañ. waa ñu ngi lay ziar bu baax di ziar ñëpp ziar Sénégal monde entier ñëpp ñu ngi leen ziar ñëpp di sant Seynal Imaam sant Seynal Imaam bu baax sant Sénégal ñëpp monde entier ñëpp suñ Babacar suñ Touba ñëpp ñu ngi leen ziar. moom boo ma seetee moom damay a wax si émission bi rek. dafa fekkoon ma génn amoon match quoi sama équipe moon football kees muy RS Yoff moon fa mais maa am ndam maa am ndam maa dóor deux quoi. ah Cheikh kon yaa ngi si match yi. waaw maa ngi si match yi maa ngi si match yi ñoom seen mëy bees moo nekk nii sa moom laa sol RS quoi di sant sama gars ñoom ñëpp ay Ousmane Thiombane ay Taay waaw Brigué Diagne Rasoul ñoom ñëpp ñu leen sama gars yi sama cek-cek yi maa ngi ziar ñëpp waaw ziar ñëpp Ligzo Ousmane ñëpp maa ngi ziar Moussa borom Ligzo borom iPhone yi maa ngi ziar ñëpp. Cheikh da nga ñëw si ziar yeeg bëggee yi Cheikh ñu ñëw lu am solo muy combat Modou Ama balde suba même pas ay heure waaw combat Ama combat Ama balde Ama balde Modou mom lolu mom yow bo ma si laajee dama ci sor bu baax muy combat Ama balde Modou Lo instant bi mom cioli bari na trop mhm. sénégalais yi ñu ngi wax ku ci ne mu ngi yor salam mañ di wax ñëpp ñu ngi wax quoi mais Serigne Seck ñëpp a ngi wax waa Pikine a ngi wax waa Parcelles ñu moom ñëpp ñu ngi wax moom ñëpp ku si ne li ngay wax maa ngi déglu ñëpp ku si ne def say interview waaw ñëpp Serigne ñëpp maa ngi déglu maa ngi seetaan seen émission ñoom ñëpp ñu ngi wax waaw. te lamba ji moom lamba ji bëri na problème bëri na problème gis naa si problème bu rëy. problème mu lan seex. waaw gis naa si problème bu rëy te lamba ji bëri na def-def bëri na def-def bu garaaw te lamba ji moom lamba ji ko amul sens boo fa demee sa gàllaaj day toog parce que làmba ji musique bii ne si làmba ji moo bëri gis naa si ay fitis ay musique yu bëri. looy wax ni musique yu garaaw la ma gars yi wan lañ ma woon démb si guddi barki Seydina Limam. oh. billaahi wallaahi taay wan nañ ma musique bu bu bon musique bu bon. si waa parcelle wala si waa waa gis naa gis naa si waa parcelle si waa parcelle laa gis musique bu garaaw sax làmba ji musique bu bon gis naa ko si. si Modou te jigen gu ci bëgg am dom nak lamba ji suma sañon bul dem parce que lamba ji musique bi ci ne mo graw loy wax ni. barki la illaa illa jigen gu si bëgg am dom ci carton suñ borom lamba ji lima lay digal moy bul dem. Oh. te man duma ma wax du wax luy dañ man la seex borom kiraamay borom kasi luma la wax rek yow man la cheikh te fima sama tank nak teggu man lima gis lima rawani won wan man al maktum fofu la ñew sax fofu la ñew cheikh yaangi re non man ragaluma li may wax xam nga tey damay gis gars yi TikTok bi ñuy dugal parce que ñoom ñoom vidéo bi ñu dugaloon loolu yàgg na loolu bi ñuy njëkk a bi ñuy njëkk jàpp ak combat bi loon Ama Baldé Modou Lô bu njëkkoon hmm. bi ñuy njëkk a jàpp la vidéo boobu boobu maa ngi ko defoon géej si combat Mamadi Fall caatu ngéwél si laa waxoon ne Modou Lô mooy daan amaa Baldé mais instant yi nii mais instant yi le cinq bii la ñuy wax suba loolu yàgg na nag gars yi nag nañ bàyyi benn kàddu la instant bi def naa ko cinq émission ma ne Ama Baldé mooy daan Modou man Cheikh aw ma lu may ragal si loolu dañuy dem ardo ñoot Ama da kay daan te lamba ji du sax du sax yàgg. Modou Lo musul dem ardo. Modou Lo masul dem ardo lamba ji dina dem ar te lamba ji du sax yàgg du yàgg de du yàgg Ama Baldé day daan Modou Lo man Cheikh maa loolu. Cheikh loolu ëpp na de. xam nga nag fan yii fan yëpp guddi gi damay day fekk may liggéey fan yii muy ne guddi gi may fekk muy ne may ne xuntaw man li nelaw bariwul man par deux heures de temps laay nelaw yow xam nga si dara bu gars yi di nelaw man maay liggéey. su ma génnee rek su ma génnee gaa gaa yi ñoo ma génne. chaque jour maa ngi jaamu yàlla buma génné génnee instant dama fekkon man mané ndar ndar la djou sama équipe monde football RS ma am ndam sa dën la do résistanal. tey kon yaa ngi Massi. su lu neex yàlla suñ borom rek si laa ne man Cheikh man duma luy dañ fi ma tegoon sama tànk démb fa la ka tégat tay buñ bëree Ama Baldé da kay daan. man al maam lolu suñ bamb mo ne bismillah yomul luwaay bila ma naay walanti khay xam dali rabbi xeerum rabbi khadral ma khalbi bil bi laxti daay muy xasida bi ma durus man la Cheikh borom kiramay Cheikh looy wax nii. man la borom kiraama yi du ma wax luy dañ ragal. instant yii nii waa passé dañ la mere de. eh man li ma rawaani wan loolu laay loolu li ma rawaani wan loolu laay wax man Cheikh faralu ma kenn. ta gars nañ bàyyi di wax seen baat ba naan Ama Baldé lay liggéeyal Cheikh amaa Baldé jox na ko 5 millions gars yi nañ bàyyi. mais loolu amul. loolu amul. yow da ngay da ngay def yàlla taxawal nu mu demee noonu. démb démb oo oh, démb am na ku ma oo. am na benn waaye moo ko xam ne rek Ama Baldé oo naa ko démb def ëppaleur ma ne ko ndax man damay liggéey Ama Baldé oo naa ko dem ba téléphone mu ne ma loolu amul gars yi nañ bàyyi di wax seen baat boobu noonu man ànduma kenn faraluma kenn. da ngay liggéey kenn moo ma yitteel sama life kenn naa ma yéem muy Seydina Limamou. tey kooku moo ma yéem yonante bi faraluma kenn sama adduna. ànduma kenn sama poste daa faral gars yi dañ may fay may liggéey. kon instant yii da ngaa liggéey si combat bi. combat bi liggéeyu ma si li ma rawaan bi wan loolu laay def gars yi nañ bàyyi doon dagu nañ bàyyi doon Cheikh Ama Baldé da ka fay xaalis pour mu liggéey ku si wax loolu yaa ngi bàkkaar. waxi ñu la. barki Seydina Limamou kenn kenn fayu ma gars yi nañ bàyyi di wax baat boobu noonu li ñu wax noonu ñu ngi baat appel yi bëri na de Cheikh waa Parcelles waa Pikine nag ñëpp nañ laa woo fay na de non bi moom façon nit ku ne mooy appel yi moom bëri na moo tax sa instant sa yeneen ni changé naa yeneen numéro numéro 78 changé naa ba yor naa benn sa beneen numéro Tigo ah, si ñëw après numéro boobu tam dinañ si wax gars nañ bàyyi di wax loolu ñu ngi bàkkaar Ama Baldé fayu ma Ama Baldé fayul Cheikh ma waxaat ka ñaar yoon lu ne nañ bàyyi parce que man li ma rawaan bi woon li ma rawaan wax man Cheikh rawaan bi woon ma tëdd ba guddi rawaan bi woon mag may durus ñi ma àndal ñëpp ñi ma àndal ñëpp wax ma lool Ama Baldé mooy daan Modou Lo te si kattanu suñ borom suba bu làmba jiyee yéen di ngeen ma seet sama gàlle dañuy ñëwaat média yi dinañ ñëw suba seet sama ci Cheikh borom kaas du ma luy dañ te làmba ji nag buñ amul sens buñ amul sens làmba bu buy si géew bi lay yàqu ah. bu ñu amul chance bu làmba ji di yàqu si géew bi lay yàqoo. waxoon ma la fois passée soo def loolu làmba ji doo am de. bu ñu amul chance làmba bu yàqu ba suba si géew bi lay yàqoo mais buñ bëree laa la Ama Baldé day daan Modou Lo. man Cheikh Al Maktoum lool borom kaas borom lax deri borom tabdil borom tabdil borom lax deri. borom yoof man maa lool borom yoof maa ngi oo bar barxaama ñas su ma su ma doom day maa ngi oo maa oo ñëpp ñoom mooy noonu sama gars ñoom ñëpp Ndiaye fils l'international daa am ñu ngay ñu ngay liggéeyal si suuf wala nu mu demee ne ay mara yu yu ngay liggéeyal si suuf wala nu mu demee non te te kaay la nag dara de parce que ñu bari dañ yow yow dañuy gis ngay feeñ bëri na fi nag ay mara yu bëri yu ne fii si town bi man maa nekk seen ginnaaw maa wax ñuy def maa ngi wax bëri na looy wax nii gaa yi teg leen ay maaraa fii nii dañ may kool man ma leen wax ne tey jii lii moo war a ba suba lii moo war a am na am na match bu doon daw bi 80 minutes ma ñëw 80 minutes fekk sama waa gars di seetaan man Manu day dugal Manu dugal bëri na suñu bëri pari foot ñi yokk code yëpp man maa ngi jox code yi man Cheikh maa ngi jox code yi gars yi di jàpp. Cheikh da ngay eh, nekk si wàllu pari foot yi. non dama siy ne mais man du ma lekk xaalisu pari foot man lu may lekk lu leew laay lekk mais commencé woo téléphone laaj ma code yi ma wax la. mais farlu ma kenn commencé woo laaj ma code ma dimbal la si jàmm yàlla ne bi match bi nii lay demee temps temps temps kon ni ma waxoon si match RS Yoff fi ma ne RS Yoff mooy dóor Arsenal 2-1 li ma waxoon mooy dóor 2-1 tey match mooy li ma waxoon RS Yoff day gagné 2-1 si laaj ma wax la. Hmm. après boo ma laajee si combat si combat Siteu ak Lac de ma doog la si wax. si ñëw après. si combat ama ah, Sène Eumeu Sène Tapha Tine ma wax la si. Tapha day daan Eumeu Sène man maa la. ñun laaj ñu la lool de moo fi nekk instant yii nii ak Ama Baldé. te combat kaw doon non Modou Lo Ama Baldé Ama Baldé day daan Modou Lo. bu gaa yi yàqul làmba ji rek Ama Baldé day daan Modou Lo. waa parcelle mer nañ la lay wax si nel boobu ngay gis noonu nelu Ama Baldé woon nel boobu. waaw nel boobu sa waay nel boobu secret la de. Ama Baldé wax nii. déggoo li ma la wax nel te roi bu bees bi ma gis nii si kattan suñu borom. suñu roi bu bees bi ma gis nii si kattan suñu borom. doomi Fallaye Balde jooju roi bu bees ma gis ni dara mënu kaa tëree jël bi dara mënu kaa tëree jël roi man la seex almaxtum borom lax dëri borom tabdil roi bu bees bi ma gis nii bi ma gis nii. caatu Fallaye sëgg moo koy tëree jël roi bi. pare na de physiquement. Ama Balde bi mu daanee Modou Lo du tey sénégalais loolu lañu ñu war a comprendre ñu def loolu seen boppa te maaraay may gis ñuy ñëw di affiché wu. di affiché wu dem di affiché wu si signature contrat yi dem di affiché wu xaw ma ñu ne maaraam Modou Lo la xaw ma. waaw kon ngeen nga si ñuy wax noonu. Sa Touba ñu wax. Sa Touba yow. day man maa fi neex ma la seex lébu yi laa àndal ñu lay lébu lañ. Sa Touba day sóob. yi ñoo moom Sénégal lébu yi ñu ngi fii ñoo moom fi ñu lay lébu lañ. mais Sa Touba lu wóor la yor da lay wax ne la. Bassa day gañe Bassa gañe. sa waay ñooñu ay courtier lañ sa Touba ngay wax ñi ngay wax noonu ay courtier leen. barki Seydina Liam ñi ngay wax noonu ay courtier leen. yaa ko waxee sa. sa Touba combat comme na bàyyi na bàyyi combat moo liggéeyal Ada Fass amul yow yaa ma seet émission nga seet sa ma ne la Ada day daan zos. loolu nga ma wax kay lambaj day am coow coow du yàgg man maa wax loolu. dama ne sa Touba maa ngi koy dégg télé seet sa ka moom sa Touba mu ne sa Touba moom laay waxal ñun ay lébu lañ tundaw Sénégal fii yëpp yi ñoo ko moom ñun duñu wax luy den Sa Touba tamit du wax lu muy de luy de. déggoo li ma la wax. boobu la man yow yaa ma seetse ma ne la. Ada Fass day daan Zos. te lamba ji boo du am. waaw soog soog Zos. mu ngi si siiwal ko TV. wax naa la ka. waaw Zos bi mu ñëwee fii ci kaloon sanga kooku suma kooku yaay la mooy son papa. parce que waxoon nga ko ne ne soo soo def lu wóor combat bi do am ga eh, Zos moo moo sauvé combat bi mais naru woon am. combat bi naru woon am wax naa la ka. man du ma luy dañ combat nar woon am. mais Satou Ba ñëw la ñooñu ay courtier lañ te maaraay di ñëw si man ma wax ñoom ñëpp ku si ñëwati du la wax am na maaraay bëri ñu ne si Sénégal fii nii ñoom ñëpp gars yi topp seen ginnaaw. Ah. gars yi dañ leen di wax ba si Mara Niass. Mara Niass Mara bi kay wax noonu Touba la barki Seydina Limam ñooñu duñu ay Mara. ay Mara Niass lu mu la am. barki Seydina Limam ay nañ ko. barki Seydina ak kurus gi meer nii Mara Niass courtier la maara bàyyi la ngay wax waaye Mara Niass day gis affaire barki salaatul faata Mara Niass Mara bi koy wax Touba la dëkk courtier la Mara Niass courtier la Mara boobu chaque jour ñooy ne. na ma téléphone chaque jour ñooy ne Mara Niass courtier. da ngeen di liggéey ak moom quoi. déggoo li ma la courtier la. dañoo am benn groupe de groupe boo xam ne ñoom ñëpp dañ seen gars dañ may téléphone may li seetal dañ may oo téléphone man Mara yu bëri yu ne fii gars di seetal gars man maa ngi seetal man mii la ñu oo man ma seetal leen gars yi duñ gis Bara Niass ay courtier gars yi ay courtier leen soo bëggee kii di falu président ni mën naa la ko bu làmba ji passé. kii war a toog nii kan war toog war a toog nii toog nii. mën naa la ko wax. Amadou Ba. déggoo li ma la kii war a toog Sonko. kii war a toog président noonu laa la wax <laughs> man Cheikh man maa la koy wax. Cheikh posé foofu noonu ñu dem <laughs> ba beneen yoon. déggoo li ma la wax. lan ngay lan ngay tàggatoo lan ngay wax ngir sénégalais maay tàgg ñeent sarax mën a def tamit ba combat bi mën a am si jàmm ak salaam no à la violence. non moom combat moom buñ combat moom liñ la ko laaj li ma koy li ma koy wax mooy lenn nag yi ma ko waxoon noonu nag yu ñuul yooyu bu si mënee génn ñetta man gis naa démb am na nag wu mu génn démb am na nag wu ñu rey si bi démb si guddi trois heures du matin cey seex gis naa am na nag wu ñu rey si bi te ñii am na ñu ma gis ñuy ne si bi chaque jour démb rek ñu nga foo am na ñoo xam ne dañ taxaay taxaay pour yàq làmba ji. looy wax nii. barki Seydina la am na ñoo dañ taxaay pour yàq làmba ji taxaay yàq làmba ji lañ ne li nga ko laaj bu ma nee nag yooyu noonu bu ko naka mën a génne nag yooyu set ñetti nag yooyu ñetti nag yooyu nag yu ñuul yooyu su ko génnoon mu rey ko mu def saraxi làmba ji ba amul sens si digg géew bi lay yàqoo. cey Cheikh. man Cheikh maa la wax loolu. te am na Modou Lo am na ku muy koo xam ne si géew bi kooku noonu nitu coow la bu amul sens bu amul sens moom bu amul sens du am jàmm ci lamba ji na def attention so beugé man na la turum jëru ko jëru ko def si kot def si kat. ce combat Modou day nek ci géew bi di ciow def si lim dem ci guddi liñ ma wan. Hmm. bu defal attention lamba ji do am jamm barki sayidina limam ki may wax yow xam nga bu baax. déet xawma dara de. barki la man mënu duggal la la man do ma duggal bu deful attention ci géew bi do am jamm hôpital la jëm. lamba ji musique bi si ne moo bon musique bu garaw mo ne ci lamba ji. barki alxuraanu karim. musique bu bon moo ne. lan ngay tëjee. non maa ngi waaw li may tëj moom mooy sant lébu yi sant ñëpp xam nga ñun ay lébu lañ te dëkk Seydina Limaam lañ dëkk yonente bi ñun lébu yi dooleel. mais tey indiwoo nga sénégalais moom ñoom kaas ñoom chaque jour ma joo si kaas ñoom kaas moom chaque jour ma joo si. te seex kii yëy kaas yi kaas yi dana ngay ku ñun kaas yi moom buñ koy yëy day mel ne ñu ngi yëy pitikola nga ne ma waaw ñun ñun bu ñuy yëy kaas yi moom sa waay moom kaas yi moom man sama gàlle bu ma yeewoo sax balaa maa naan café kaas laa njëkk a désero dama naan mer al ma kaas ma désero balaa maa jël café man moom maay sax naan kaas huit depuis cinq ans ngi maa ngi lekk ay kaas bi ko korom ak fay di def maa ngi koy def dama doon laaxatu yaa ngi feeñ nga siiwal ko TV la see feeñal non man la man la see après ñu ñëw si tabdil bi ma téye fooy balance di def xaalis jël baraada bi taari sar tekkasi lal bi muy bax ma xelil Ousmane Thiombane mu naan wala ma xelil Birika kan mooy Ousmane Thiombane Ousmane Thiombane mooy la cek bi su ma Ousmane Thiombane mooy cek chaque bi Ousmane Thiombane lu ma bind si xaatim da koy livré de moom saf na saf si yow kenn du moom mooy taay sama watkat bi taay moo may Eh. rasul moom moo may livré rasul lu ne lu ma sol si yére moo ma koy jox. publicité gratuite moom dëgg sol jox rasul kenn du moom. Mm. waaw Ousmane Thiombane sama gars ay ay ay Ligzo Ligzo iPhone 11 bi ma jox moom day jaay iPhone ak gars ñoom ñëpp dañuy jaay iPhone. Mm. sama gars yi ñoom ñëpp ay bekkaay bekkaay. joxe sa numéro bekkaay borom iPhone. joxe sa numéro sama numéro téléphone sama numéro téléphone Cheikh Al waaw client yi nag maa ngi remercier ñooñu ñëpp alu alu alu alu alu maa ngi koy remercier alu borom France gis naa lépp gis bi iPhone 11 bi gis naa sama gaay ñom ñep mais gaay nañ bàyyi di ma au téléphone na man defal modlo defal ki def jëlal daan jëlal làmb ji nga ëlbatike gars naman nañ bàyyi lool mana am na ku ma tegal un million na ma ngir yalla defal Ama daanu man ko duma def lool gaay nañ dañ lool man dama direct man duma serigne bo damay fen man duma fen sénégalais luma leen wax luma luma ma sax dañ ci beut man la am almatum bu gaay ama Ama balde da wañi poids bon yow gars yi dañ comprendre ama suba sénégalais yi suba ñu bàyyi Ama Baldé suba ñu xam ne Ama Baldé li mu jenc bëreegu ko. looy wax nii. barki sëy Modou Lo tamit say pare na de Modou Lo sérénité Modou Lo physique Modou Lo koro ma gis ko ak loxo yi gaaw yi. yow sa waay li ma la wax Ama Baldé li mu jenc bëreegu ko xam nga ñoom bu may wax dañu yaakaar sëñ bi dafa faral Ama am ma seen na ko fayul ma. non yow yow yow suba suba Pikine dañuy kontaan dañuy jibile si kattan suñ borom. bu ñu yàqul làmb ji suba waa parcelle. suñu yàqul làmb ji suba waa parcelle. 21h suba waa parcelle dañuy jooy Pikine day jibile man Cheikh Al Maktoum maa loolu borom lax deri borom tabdil man maax loolu. seen mbokk seen seen taalibe mbokk taalibe moo nekkoon si micro yi Ndiago Bamba Cheikh moo nekkoon si image. waaw maa ngi nii maa ngi gërëm gars di gërëm waa marché sama gars yi waa marché ñoom Assane Ndoye ñoom Gourgif. man damaa tiit ñoom Mam Bos maa ngi bëggee ñëpp ñoom ñëpp maa ngi bëggee sama gars yi ñoom ñëpp góol bi ñoom Mam Seydi maa ngi ziar ñëpp sama gars yi waa marché di nga ñëw foofu def fa émission marché fii gars yi di attaaya fa la ñuy ne ba 5 heures du sama gars waa marché kenn du ñoom Hmm. teranga bu ne dañ koy sax waa marché may ngi dolal ñom ñep may sante ñep sama gaay ñom met mara ñom ñep may ni bëgg wa marché temps yi dégg na ne amul xaalis de waaw mais ñu ngi sante rek ñu ngi sante coow li bari na torop Cheikh mu ngi sante rek waaw mara mom boko oté nga don mara client bu len fen li nga wara a ñom def ka li ngi len liggéel ñu gis bu len triandé client dañ koy liggéel xolam sedda yow man tay ñu ngi ma ñu ma leen liggéel ba ci marché mam ndar ndar amna fa quart final amna fa amna fa demi final waaw am na demi final ndar maa ngi liggéeyal ñëpp ñi ma a joobal ñëpp maa ni joobal ñëpp waaw man moom yaa ma gën a xam li ma war a wax gars ma fenn waaw liggéey moom maara moom boo ko wootee nga liggéey te ñun li nekk li ne ñun dafa ne si ñun ñu judduwaale ko mu ne suñuy maam ne si ñun. ñaari at nga ñu ngi naan Cheikh bu amee 40 ans day commencé dox si ruu gars yi. bu ma amee 40 ans seen bopp yow xale bu ndaw. suma 40 ans man damay suma 40 ans suma 40 ans suma 40 ans man damay taarisaat dëkk bi di tàkk. ma koy eh, bul bul taar suñu bi dëkk Sénégal man sëriñ yi ñoo ma dooleel sey na li ma am dooleel ma man du ma luy du ma luy dañ man la almaxtum bu gaay di caaxaan maa ngi. ce mot de la fin. ay ne 3 heures du matin di liggéey di durus gisoo ni ma leer nañ sëriñ dafa leer nañ ragalul sëriñ bi njaaloo dafa leer nañ maa ngi nii. liguer rek rek si lii laa ne. mais en tant que xalé tamit en tant que xalé li la né li ya wudul rek. ya wudul ku ku bëgg dem làmba gi suba nga bëgg ñibisé nga bëgg ñibisé ñibbise ci si jëlal ya wudul 311 311 nga wër rek boko mané wër tay su guddi nga wër rek nga dem ci làmba ji soo ko rek ci katan suñu borom di nga dem ci làmba ñoot. su na nga wut xop xobi pofton nga tari bismillah rahmaan rahim nga baxal ka boko ko boko sangay suba di nga dem ci làmba ci si ñoot ñuy dem si làmb ci ñoom lay digal sarax boobu. si technique bi Axma moo nekkoon si technique bi caméraman yi si micro yi Ndiago Bamba moo nekkoon si image yi. waaw Cheikh a ngi maa ngi nii di bëgg gars yi Ndiago Bamba di bëgg ñëpp waa Siweulko TV ñoom ñëpp ñoo dooleel maa ngi bëgg ñëpp waaw. télé yi sax dañ seet sa démb rek am télé yu bëri oo nañu mais damay non non mais yow moom boo mooy damay defaa yow émission. parce que yow bi mu méttee la woon bi mu méttee nga ñëw di ma dooleel di ma defal émission comme tey du neex rek ma bëgg la defal gars yi non yow siwul ko foo ma woo mu ñëw yow bu ma amoon mas sax soo ma woowee damay arrêté mas boobu ñëw parce que bi nga may oo sans téléphone boobu maa yoon kees dama amoon mas boobu mas érection bi laa doon liggéeyal loolu moo taxoon mais maa ngi jégal si tardement bi nag. jaajëf te client yi nag nañ ma comprendre rek. gars yi nee nañ abonné jaajëf.